li liñ information ni mu dee am daal xam na ne ci koñ bi ngeen gis mooy koñu Ñuule Mbay mi ñu gën a xam ci secteur bi koñ boobu génnee ñu ngi jàpp ci côté 10 heures 43 ci information ni mu dee am ci la xale bi kii ko nii la jaar ñëw nii aw koñu bu yaatu bi yéeg ci télé télé bu télé bu mag bi information bu mu di am li ñu xam daal ci ki jigéen ki nga jël mooy lu daal la koloo woon bi muy jàdd ci koñ bi mu musooroo ko ci ci loolu nag euh, dëkkandoo yeeg autorité policière yeeg ñëpp ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan pour gis xale boobu ñu ngi leen jaajëfal. kilifa yi ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi dolli ziar bu baax a baax a baax. Euh, tur beeg sant bi. Lamp Fall la. Euh, fa nekk fii ci Pikine bu mag exactement. waaw ñoo ngi Pikine bu mag quartier Fass Marigot aussi Médina tamit ñaari quartier yooyu ñoo ñu ñu am euh, xew-xew bu fi am est-ce que mën nga see dellu si tuuti. waaw lu ñu si mën a dellu si moom peut-être lu leer trop mën ñu ko see wax à 100 pour cent waaye lu ñu si mën a leerlu daal mooy ne xëy nañ di génn di di liggéey ñëw yam si.

ma ne xaa ma dugg nag xool ma duggee xol nak lepp luñ ci si war a def mom ñong koy def bayuñ dara waaw pour mu feñ ñu instant yi xey ñu dañu bàyyi suñu xey waaw parce que de condo mom moy mbokk waaw franchement parler ñun suñu yitte moy na xalé bi génn fuñ mëna mën a image pour mu feñ lool lañuy wër quoi ak kum mu mënti doon waaw parce que ñun suñu yitte yëpp mooy loolu suba ba légui amul kenn ku tok même deku si koñ bi sax ñuy juggé fenen ñew pour wané waaw pour wane pour xale bi feeñ daal si image yooyu lañ nekk daal incha allah buñ si mën a jàppale tamit ñu jël. la moo attiré seen attention bi wane ne xale bi jël nañ ko. waaw li wane suñu attention dafa am benn xale bi ñuy wax Baye Clap moom moo doon ñëw si koñ bi ndax heure bu jàngiwul fii lay nekk parce que en face lañ dëkkoon ñoom léegi ñu tuxu léegi Baye Clap ba muy ñëw la dajeeg ba xale bi benn femme fob ko moom mu ñëw si kër gi daal koy expliqué xale bi na ko dama dajeeg ay la benn xale fob ko est-ce que du mbokk soxnaam soxnaay Baye Zal bi mais ki ne quoi léegi nag xale yi xaw nañoo jël benn temps bu ndaw sax wante instant yi bu fekkoon jugoon nañ dem direct rek mënoon nañ si yem wante temps bu ndaw bi ñu doon vérifié waat si biir kër gi ana xale bi fan la nekk exactement moo waral lii wante fekkoon jugoon nañ fi instant yi dem rek dañ koy gis quoi yàlla dogal na nag ñoo ngi jëf luñ mën pour xale bi feeñ. yan information ngeen mujjee am concernant ci wër bi. wër bi information yi mën a am mooy da ngay def tegtal rek maanaam dem nga fi nga war a dem police yaa ngi dem si sëriñ si nga xam wala ñi nga xam ne jot nañ ne boom dañuy feeñal xale ñoo ngi si yooyu wante yàlla dogal na gisaguñu quoi wante toutes les façons daal njort am nañ si njort gu rafet wante lii dafa stop quoi dafa war a doy Sénégal waaw dafa war a arrêté quoi loolu nag ñun nag mën nañ si dara wante lu si ëpp njëriñ lu ko mën a fajal mooy maximum benn koñ bu nekk bu ti am angle bu nekk mu am caméra surveillance boo xamante ne lu mel ni bu amee mën ñu ko génneel ko xam nga ndax doole amuñu doole bi matériel lu ñuy waroon am fond pour def ko amuñu ko wante ñu war si war a jàppale bu baax a baax surtout état Sénégal lii dafa bëri quoi waaw est-ce que sàccum xale faral nañ di ko nemmeeku gox bi ngeen nekk. non koñ bi moom man nañ la sàcc ak sàcc moom mosuñu ko fi dégg ay sàcc xale ak yooyu daa nga dégg feneen wante fii secteur bi moom c'est la première fois ñu gis ko dégg ko sax li si daa am mooy xale bu réer wante xale bu ñu sàcc moom c'est la première fois mu dal ñu te dinañ si ut matuwaay ba dootul amati voilà. lan ngeen mujjee jokkoo ak waa police. li ñu mujjee jokkoo ak waa police jox nañ sunu plainte. si lenen li nga xam moy image yu ñu jotagum ne caméra yi nekk si yenn endroit bi moy fini ñuy liggéey mooy ci euh, bi jaay cuuraay wala banque bi wala fi ci souf fofu lañ mëna bëgg dem saisir fa xol waaw peut-être ak wa police ñëw jappalé ñu ñu mëna gis carrément femme bi image am carrément ndax amna image ñu jot gis wante doyul ñoo war gis yu gëna a doy ba ñu xam femme bi exact kan la exact du ko fee mu mën ñu see dimbali parce que tamit doy na daal. Quel message ngay lancer

tout xalé bi Aïda Diagne la wow waaw deux ans yu manque, wala deux ans juste voilà voilà ok yaay ji Kiné la tudd dom ji Saalum la tudd make-up ok ngi di jégg merci beaucoup jërëjëf content. klaxonné ma jóg pour ñu xale yi tuuri mbalit sama sët bi ndey far ma di ne ma daal di maam daal bi ñu def ci kii man ko seetal boo gisulee morom bi demal tuuri leen ko léegi ñu jël mbalit mi dem di tuuri ñoom ñëpp fi lañuy ñuy ci kër gi mu daal di dab xale yi di tuuri mbalit ni leen Aïda Diagne am na ku jigéen ku ko jël moom nee gis ku koy jël waaye dafa defoon mbokku yaayama yaayu xale bi yaayu ayda moo tax waxu ko dara waaye mu xelam dalul mu dab dabi xale yi doon tuuri mbalit oto mbalit bi ci koñ bi nii lay taxaw mu ne leen ay dajaañ am na xale bu jigéen bu ko jël mu ne ko ane mu ne ko noonu noonu ñu daw xool gis ñu dawaat ñëw ci kër gi daal di nuyaayu xale bi kin ne kin ne ane ayda mu ne ane ayda mu daw di seet maamam ngañ fekk ngañ yéeg ci kaw ñu defoon def ko topp ñu yéeg ci kaw di seet mu ne ana ayda mu ayda instant bi ñu daw sama doom bi day liggéey ci koñ bi ci ginnaaw ma ne mbaa xale bi àndul ak demul toppi ko ñu daw yéeg laaj mu ne ni ay da nekku fi fu nekk ñu këmt këmt ma laaj xale bi nga xam ne moo waxoon loolu kilaab bi ma laajee kilaab ma ne ko yow kan moo jël ayda mun ma benn ku jigéen ku muuroo kol gu jaune moo ko jël waaye dama defoon mbokku ne la ma ne ko fu mu aw mun ma nii nu daal di daw xale yi dem nañ ba taliba dem nañ ba ridis fu nekk dem nañ fa gisuñu man léegi laa jógee am kuñ ma tegtal ci koñu armeel yi ma dem mu seetal ma ni ma dem leen toog te dal yéreem ma daal fekk bi may dem may ma yóbbawaale yéreem yére baa ngi fa ma bàyyi mun ma demal bu fekkee ni feeñ na tey nga dellu si jël si yére bu feeñulee tey ba subaat loo ci mën a xam bu subaat na nga fi dellu si xale yaa ngi tasaaroo même nga ñoom ak ñëpp ñu ngi tasaaroo dem Fiji ci biir kër gi ko jël dal xam naa ne fii nga ko jëlee ci buntu kër gi waaw te sa gaaw nag ah man ndey mbooj laa tudde xale bi reer bi sama sët la sama sët la ah ah ah xanaa di ñaan dimbal rek lu ci waay man rek ndax bu dee maa man dem nañu pour ñaan euh, euh, ñu seetal ñu yóbbu nañu yéreem ñii neenu nañu tey yére bi ñii neenuñu luñ fi waay wax daal def nañu wax dëgg yàlla koñ beet jàppale nañ góor ak jigéen kenn toogul kenn toogul ku ci nekk lu fu mu la fekkoon ngay liggéey bàyyi nga sa liggéey ñu ngi kenn demul fet yaa ji añ bu mu doon taal sax mi ngi nii mu bàyyi talatuñu wax waxu añ waaw yàlla nag moo xam yàlla ki nga xam ne lu mu niit mu leer yàlla nañu ko yàlla niital rek mu ñëw ci jàmm ak salaam fekk ñu fekk jàmm ak salaam loolu laay ñaan <laughs> looy laay gis ko ci jàmm ak salaam soxna si ginnaaw bi la nuyoo nga présenté wu tur sant bi. waaw man la bàjjan Wali Jaw di mag papay xale bu réer bi nii bu ñu jël léegi léegi ci kër gi man léegi laa wàcc nii. diggante bu ma wàccee oto mbalit taxaw di peep léegi sam ne xale jël leen mbalit mi tuuri léegi ba ñuy jëlee mbalit bi di tuuri léegi suñu benn dëkkandoo gis ku jël uh, xale bi fob ko di jàdd noonu fekk kooku dafa jëndi woon mburu léegi si la dawaatee ñëw si kër gi daan ulmata am na ku gàddu ay dada mi ngi jàdd nii ko ñu tonto ñu tànn ñuule jàdd na noonu di dem mi ngi koloo kol bu zone léegi da ngeen a am gan ñu ne ko ganu lan amuñu gan kay mu ne ku xees la de mi ngi noonu jàdd léegi nag si la sama doom bi sànni mbalit mi daw topp ko na ñëw ba fii si ñu kalandoo bi ñëw na ba nii yëpp gisul kenn si la wàññeeku waatee ñëw si kër gi nag wax ñu ko ñu nit ñu kii boobu ba léegi nag ñu ngi wër gisaguñu kenn. Adja en tant que bàjjenu gox ban message ngay lancé. Ah xanaa di message di lancé ñëpp rek ñu waral ma ko rek sama doomu rakk la doomu Sall Maykëp ya papa mi ngi liggéeyee fii di tatouage. dafa voyagé tey nekku fi sax ñun ñoo fi nekk xale bi sam papa la toogal yaay mi ngi togg si waañ bi xale yaa ngi tuuru mbalit moom du génn un an et demi rek la am mu du dem fenn wallaay la azim merci beaucoup yàlla na ko yàlla nit nag te yéen ñu ngi leen di jaajëfal macha allah jërëjëf.